salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci xibaar yu ama am solo jëm ci njënd meeg njaay maanaam mercato bi waaye laata ñuy ñëw ci yaatal gi ñoo ngi ñaan kuy gan ci page bi te abonné go nga abone bés kolos bi nga xam ne lu ñu dugg rek di nga bokk ci ñu koy njëkk a jot ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi dooree ko ci waa Bayern de Munich ñoom seen capitaine bi di seen góol di doomu Allemagne Manuel Neuer yokku na contrat am ba 2024 maanaam benn at la yokku ci contrat am ndax 2023 la contrat am waroon jeex waaye jamono jikat officiel na xaatim na beneen at ci kon contrat mille vingt 2024 la contrat am di jeex tàkk foofee ca Bayern de Munich ci fàttali Manuel Neuer nekkatul gone ndax am na 36 ans moom nag yàgg na ca Bayern de Munich ndax mille 2011 ba léegi moo nga ca club boobee kon nag wa club ba dañuy wëy di ko wóolu moom it day wëy di dëggël ni moom club boobee clubu xolam la kon yokk na contrat moom mi di Manuel Neuer bu ñu jugee ci waa Bayern de Munich dañuy dem ca waa Portugal bii di Fabio Carvalho jënd nañu ko gone gi ma nga woon ca Fulham Fulham nag ca deuxième division bu Angleterre la doon football ñoom sax ñooy champion kon déwén dañuy ñëw ci Premier League bi waaye doomu Portugal bii kat dem na ca Liverpool loolee officiel na moom nag kon déwén day kujjee ak ñii di waa Fulham mi nga xam ne mooy ancien club am jamono jii kat ñii di waa Liverpool ñoo ko moom saison bii nag dafa doxal moom gone gi ndax football na 36 match dugal na 10 but def 8 passes moo tax kat ñii di waa Liverpool nelawatuñu ba yandoor te def nañu lu nekk ngir indi ko foofee gone gi milieu de terrain la bu football am yaakaar ci moom gone gu ndaw la 19 ans képp la am jamono jii joru Liverpool la. transfert boobee nag li ci Liverpool def mi ngi toll ci huit millions de livre sterling bonus yaag yépp nag ca la bokk moom signé na fa contrat wu juróomi at. ñoo ngi Angleterre googee ba léegi ndax kat doomu France bii di Boubacar Camara nekk ca Marseille moom nag na engagé wu na fa ci ñaata contrat wu juróomi at la signé foofee ci Aston Villa moom nag ñi ko bëggoon bokk na ci Atlético de Madrid waaye kat ñii di waa Aston Villa foqati nañu ko ci waa Atlético de Madrid tànneefu Boubacar Kamara boobu nag dinaa samp laaj ci commentaire yi ndax tànneef bu gën la li ko waral moo di kat Marseille ga mu nekk qualifié na Ligue des champions day football Ligue des champions Atlético de Madrid bi ko bëggoon ubbil ko fa nag këram ne sa kër a ngi nii soo bëggi soo ñëwee fii kat loo bëgg dinañ la ko defal mu bàyyi ko fa tànn Aston Villa mi nga xam ne demul Ligue des Champions tànneef boobee mu def ndax bu gën ci moom la am déet ñu jugee ci Boubacar Kamara jël doomu turki bii di Salih Özcan moom nag signé na foofee ca mun officiel na ba waa mun siiwal ko signé na fa ba 2026 maanaam ñeenti at la mun Dortmund nga ko jëndee ca Cologne foofee la gone gi nekkoon di doxal ab milieu de terrain bu football am yaakaar ci moom la 24 ans képp la am jamono jii nag jouru Dortmund la foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam tuuti ak revue de presse bi incha allah ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax.